Euh, tey nag ki may dalal euh, daañu waxtaane lu bari euh, problématique jeune ak avenir parce que lui vous de la jeunesse mm-hmm. voilà vous êtes jeune vous vous sentez plus jeune vous vous sentez plus âgé <laughs> maa ngi si diggante bi waaw maa si diggante bi ah. diggante mag ñeeg jeunesse bi ah, foofu laa nekk quarante ans moom boo xasee laax cinq voilà maa ngi si diggante bi mm. mais damay investir lu bari ci ndaw ñi lu tax may investir lu bari ci ndaw ñi mooy dama tukkee àdduna ba gis àdduna bi ñuy bokk ak ñu bari dama gis ne booy jëmbat danga koy jëmbat ci ndaw booy lebale danga koy lebale ndaw booy maye nga may mag ndax ndaw boo jëmbatee ci moom danga mën a récolter may wax en tant que baykat ma gis réew yi defar àdduna bi yëpp dañoo jëmbat seen ndaw ñi dañoo def lu ñuy wax économie de la connaissance def xam-xam seen ndaw yi moo tax ba léegi Afrique réew yu mel ni Sénégal depuis indépendance li ñu defagum yëpp am na lu bari la si baax mais ba léegi li ëpp mënuñu régler ils sont incapable de régler la question the quality of life du sénégalais lambda maanaam sénégalais bi lu muy dundee bu xëyee bu feebaree dana mën a faju bu jàngee ba pare dana mën a am liggéey bu liggéeyee dinañ ko mën a fay lu mën a dundee jàppale ay waajuram dana mën a toog ci réewam mën fi tekki am fi lu ñuy wax sutura dignité ndaw boobu pour mu am dañ ko war a tabax parce que dafa am lu ñu dal ñun depuis indépendance amoo lu ñu daal dañoo am réew moo xam ne dañ ko tabax ci xelu jaamur ak ci réewu jaamur ak ci culture jaamur ak ci làkku jaamur dañu wàcc suñu aaday maam yi dañu wàcc li nga xam ne suñu maam yi moom la ñu defaroon ñu wàcc ko bëgg a nekk kuñ dul nekk ba àdduna bi di tukki damay wax toujours ne dañu am président boo xam ne daf ñu révélé woon ne mu ngi wax benn bés dana ñëw en de mille gis na Sénégal wala dakaar mu mel comme Paris te loolu problème gënu ko rëy li ñu def nii yëpp moo ñu ko indil problème yi nekk nii yëpp ba léegi Sénégal problème yi mu nekk ci mbay mi ci suuf si ci lakk gi ci naan bi ci et cetera. ça dépend de lépp fa la jógee ça dépend de lu ñuy mettre euh, ci concept boobu. concept boobu na man dama la ko bëgg a tojal. lu tax mu li ma la wax ne. loolu moo yàq fii yëpp li ma li ma la wax nii xëy ma ne xam ko. concept bi. Euh, waaw d'abord ne d'abord da nga ne. dañu war a investir ci jeunes yi. waaw alors ci sama. ci ni ma la gisee dama jàpp ne. Hmm. quand tu t'investis autant pour la jeunesse. Hmm. c' que xam nga l' importance de l' investissement sur les jeunes. Hmm. et que peut-être que jàpp nga ne yow bi nga nekkee xale. on a investi sur toi et donc le le, le don de soi. pour, pour sa communauté. c' est même daf lay daf lay daf lay waaw côté boobu wax nga si dëgg li nga wax dëgg la si benn côté bi mooy man dama nekk ndaw comme ndaw ñi ma gis ñi tey Sénégal. juddu gi sama yaay di sonn mu am lu may métti ma bëgg ko dimbale mënuma ko muy xëy di togg fonde ak kër gu mag di nettoyer di dem marché comme suñu mag yëpp niñ koy defee boot ay doom ñun ñëpp ñu neef bu jooyee ñëw suma kër maam sama maam ne ko dellul fekk sa doom ji di màgg màggul doo am lu la neex muy jooy naan ko ndax dinaa ko mës a fekke sama maam tool ma sas ne ma kii ronkoñam yaa ko war a faj mu ne mu gàddul ma sama bagage ne ma demal dakaar nga jàngi foofu ndax dama naan toog suma kër maam trois jours duñ tàkk tàkk duñ duñ cindu tàkk suñu kër ma ñëw Dakar ak frustration boobu nan laa mën a def ba génne sama yaay ci difficulté yu mu nekk nan laa mën a génne sama maam ci difficulté mu nekk dañ naan toog at électricité du am suñu kër sama kër maam ñu nekk ci difficulté yooyu malheureusement sama maam gaañu fekkewul suma njëriñ mais ma teel a xam comme lu xale yëpp di dund Sénégal que maire bi li muy dund nii man maa ko war a faj ma nekk fii dakaar di xeex di jàng di nekk apprenti mason ba mën a dem États-Unis sama réew joxuma opportunité ma mën a réussir fii ma gis réew moo xam ne dafay jaay rêve ci àdduna bi muy États-Unis ma fexe tout pour yegg fa wàccee fa dix mille francs vingt vingt dollars di fa xeex ñu jox ma opportunité ma commencé di nettoyer ay table ci Bronx ba ca Maison Blanche ba